manipulation ci ay manipulation yu def suñu population suñu population. présenté wu waat nga présenté waat nga xam yow yaay kan d'abord waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum diaspora maa ngi tudd Jules Ndiaye bon nekk London nekk en euh, immigré nekk seen doom seen frère. bëgg Sénégal di xeex ngir Sénégal comme tous les jeunes bon rêvoon rêvé dem Europe pour mën a ñëw investir suñu dëkk waaw mais ba ñu ñëwee fii liñ ci gis moo tax ñu dugg ci combat bi pour ne pas être un négociateur comme tous les les jeunes, waaw léegi jur balaa ñuy approfondir débat bi donc euh, dañu bëggoon xam pourquoi nga ñëw London. London tour la rek xam tamit bon bu rek <laughs> ko indi quoi bon mais Londres la ma fekk. Euh, combat télévisé bi euh, par exemple combat Facebook beeg yooyu ak YouTube Londres la ma quoi comme ça fu mën a wax foofu laa nekk loolu moo tax ma ni Jules Ndiaye London waaw. Ah, mais Jules d'après réseaux sociaux yi on est on a vu que tu es très très très ou bien trop même actif lu waral yow ngay mën a combat révolutionnaire bi nga xamante ne moom ngay mën a di wax ci commune bi xam nga toore à travers waaw ah, maanaam di sànni ay xeer lu waral loolu. waaw sant yàlla rek parce que affaire yi du sànni xeer sax bon dañoo gis ni tamit bon euh, Sénégal toll na foo xam ne il faut tamit ñuy waxante dëgg. Euh, di dénoncer parce que tamit fii boo fi ñëwee sa yaram day daw te ñun lu ñu am Sénégal moo ñu ko gënal loolu rek moo moo ñu dugal ci combat du dara du dara du dara yàlla ak souffrance bi ñuy gis population bi ci souffrir da ngay ñëw sax mais doo mën a nekk parce que say moroom ñu ngi souffrir ba tey di am ay problèmes yoo xam ne nga gis population bi ah, am ay problèmes yoo xam ne ñu war leen fajal te du dara ni loolu daal moom moom man moom gën a dugal ci Pambal. mais dañu gis que lu bëri yow Jules. Mhm. Euh, da ngay indexé suñu autorités yi fii waaw plus précisément le maire de l'honorable député monsieur le maire Moustapha Amel comme noonu lañ koy woowee lu waral loolu. waaw sant yàlla rek. Euh, l'honorable suñu grand la suñu njiit la on le respecte beaucoup mais tamit nit boo ñu jiitee am nañ droit. ah ha? wax la yow ah fu nga jëm parce que xam nga boo jiitoo doo xam lu nekk sa ginnaaw ñun ñu nekk sa ginnaaw ñun tamit suñu plein droit lañ nekk ne la ah monsieur lii de boo lu ngay def nii wala fu nga jëm nii boo eh, boo defoon leneen wala ñun ñu gisee nii ha? ah dina gën a baax ñun noonu rek dañ ay ñun ay conseil am lañ wax laa mën a wax conseil boo xam dañuy gis ay faayam ñu teenoo seko man wala ma nekk fii ba eh, Londres ah ñu yónnee ma ay affaire yoo xam ne wala ay ñu kaas amuñu voix comme ça yàlla xaw na ma may tuuti voix mën naa wax ni am ay même bu dee benn di ma déglu sax ah loolu moom mu dugal ci combat bi moo tax may dénoncé. mais comme ay lan maanaam boo nee ñu yónnee ma ay après yam ci loolu. il faut nga lan lañ leen yónnee. waa parfois ñu yónnee ma ay ay par exemple euh, sama combat boo xam ne man damay fekkee parfois damay ñëw vacance. bu ma ñëwee damay dugg si temps bi même bu ma yore oto damay damay gaare oto bi dugg ci temps bi parce que man j'aime j'aime xam nit ñi lan la ñuy dund ak ban souffrance la ñuy dund daf may jaral ma dugg tata dugg kalandoo dugg si xool xool population bi li ñuy daj wala ma doxantu dugg biir kër ma saa dox à pied parce que suñu njiit yu bari loolu mooy seen erreur dañuy nekk seen auto climatisé bureau climatisé duñu xam dara bu leen falee moo tax mais boo duggee euh, euh, dem dikk bi gis benn malaat ah taxaw Kër Massar ba ba Dakar mhm. ah, duñ ko may sax mu toog mhm. yooyu moo ñuy dugal ci combat yi mhm. wala nga gis saret euh, boo xam ne man d'ailleurs loolu wax moo tax sama combat benn saret laa toog sama buntu kër gis benn borom saret yàpp benn malaat ah ak ay nit. fan fii nii sama buntu kër. fii nii ak Kër Massar. billaay wallaay. photo boobu maa ko dem ñu ne ma c'est pas à Kër Massar ma ne si c'est à Kër Massar ñu wax ma bind ma photo sama bopp wan leen ay preuve loolu mooy sama combat loolu moom gën a dugal ci combat mais Jules. Hmm? donc yow ban appréciation ngay def par rapport ak euh, équipe municipale bi nga xamante ne depuis quatre ans ñu ngi fi xam nga ñii di jooy ay infrastructure hmm. moom lu mel ni terrain de football ñii di jooy ay foyer des jeunes ay centre culturel ay marché yoo xamante ne aussi xam nga hmm. de dernier dernier dernière génération. yow lan ngay mën a wax ci loolu. waaw ndax njiit bi mi ngi liggéey wala liggéeyal selon yow. njiit bi amul vision. amul vision du ma ko waxee ñu bari dañuy wax lu tax ma wax lolu gis nga boo nekkee njit njiit du question jang du question bari xam-xam. manam le maire quoi. waaw le maire Moustapha Mbeng honorable on le respecte beaucoup mais warna na xoolaat taxawaayam parce que tamit nit bu la jiitalee da nga war xol xool sa ñu nekk sa ginnaaw population ñuy souffrir mais man luma gis fi maire bi dafa même keroog maa koy déglu télé. Mhm. il oublie même les problèmes des des Massarois. man dèjà dem naa armée yi xool armée armée yi fees na armée kenn ñu koy invité mais waxuñu si te il y a on a l' espace baa ngi fii waroon nañ fa armée yi fees na dell dell dell dell fees na dell insécurité bu fi am Kër Masar musul am ñu Kër Masar ba ñu fiy dëkk da nga doon teg sa bunt ka dem xëy dem liggéey kenn du fa dugg tey da ngay toog sa kër ñu agressé la mais loolu lu tax. dëgg la insécurité mais am na ay lu ma la bëggoon laaj aussi ay points yoo xam ne dama bëgg nga wax ma ci sa laa waaw maanaam. terrain te terrain football bii nii ñu ne stade la quoi amul amul gradé et puis ñu ne une valeur de quarante six millions en plus aussi ñu ne aussi euh, maanaam euh, subvention nawetaan yi côté culture bi joxe nañ fa vingt millions bon ñi yor côté boobu noonu di ci yëngatu bañ nañ tamit xam nga ñu ne marché Ainoumady bi à l'insu du conseil municipal jaay nañ fa ay table d'après leur dire à des cent cinquante mille francs donc yow coow yooyu am yëpp nga xam ne affaire de xaalis la te moom mënagu ko justifier yow lan nga ko ciy wax. waaw loolu xam nga loolu rek day wane ni tamit bon nit nit bu la jiitalee. da nga war a di leerlu. waroon jiite rek nga toog sa bureau. di def lu la neex di wax lu la neex. loolu tegu ko fenn. kenn falu la pour nga toog yow say copain yow say gars man wax naa ma njëkk wax ici la commune de ma Massar c'est pas une dynastie Mbengue santul Mbengue waxante dëgg dañ ko bu ñu ko falee jox ko xaalis mu téye mu war ñu téye suñu suñu commune ak fukki loxo ak juróom mais lan lañ gis lan lañ gis ay agents fictifs deux cent quarante ak sept yokk nañ ci benn deux cent quarante sept agents mais Kër Massar nañ waxante dëgg bu amul deux cent quarante six sept agents kon Kër dina am sécurité dina am dinañ dinañ bëgge dinañ dund dina set mais doo dëgg ba pare septaay bi xam nga la moom a gën a métti budget bi dañ ay voté benn yoon lañuy bale ci mbay at bi <laughs> sinon dañuy taf taf yëngal xaalis boobu fan la jëm fan jëm fan jëm fan jëm Sénégal kenn ëppale wu fi dara mm-hmm. ba pare man yàgg naa demande ne ko moon nit bu la dénkee man tey boo bu ma dénkoon sama saak mm-hmm. balaa may dugg damay wax am naa lii am naa lii am naa lii bu may gën tamit damay am naa lii am naa lii am naa lii mm-hmm. parce que nii nañ ragal yàlla jiite du question da nga war a enrichir jiite moom mooy jubal mhm. jub parce que boo ko daful ëllëg yërëm naa la billaay wallaay tallaay mais Jules mhm. euh, am na lu la buggoon laaj da ñu ko xawoon dee sànq waaw mais d'après nu ñu gisee nii dafa mel ne Jules yow tu tu veux devenir un candidat ou bien da nga am candidat boo poussé donc tey yow kese kese yaa mën a tontu loolu au Massarois tu veux devenir un candidat ou bien tu as un candidat bu nga bëgg poussé c'est quoi exactement yow ton idée damay sant yàlla ne alhamdulilah. Mhm. en tant que doomu Kër Massar. en tant que diaspora en tant que immigré man je déclare fii mhm. que avec Jubanti Sénégal rek mhm. bon sunu sunu présidente moom tamit candidate la mooy Françoise Hélène Guèye. ah te mu nekk Amérique quoi. ok États-Unis suñu sœur bu baax ba pare muy jàmbaar dëgg. liggéey kat. ku xam ne ñun dañu liggéey te yàlla tax bi sabib laa la ñuy def. donc moom dafa bëgg a nekk président nekk ma ne ko nag yow ba nga nekkee candidat président man maay nekk candidat euh, euh, prochaine maire Kër Massar. avec ah. jubanti euh, Sénégal. jubanti Sénégal da nga bëgg a jubanti Kër Massar. dama bëgg de yow bëgg jubanti Séné Kër Massar saa <laughs> saa waxuma la Séné Sénégal moom waxuma mooy loolu ñun ñu fi gis dalul suñu xel. dalul suñu xel. de même que Kër Massar war na nga bëgg fi nekk candidat. bien sûr mais pourquoi pas je maire bi lan lan la xam te xamuma ko daf naa daf naa quinze ans Europe xam naa luy immigration daj naa lu ne man alul adu taxumaa jóg mais wan leen ni tout est possible rien n'est impossible ici il suffit nga am vision xam loo bëgg nekk jéem ko appliqué jeex na c'est point c'est tellement facile mais Jules dama ko naan laaj hmm? ndax boo nekkee maire incha allah incha allah boo nekkee maire amiin waay amiin waay <laughs> ndax boo nekkee maire li population yëpp di wax maanaam auditer est-ce que auditer dina nekk sa sa priorité auditer maanaam équipe municipale bi auditer ak l'actuel maire mais bien sûr dinañ ko auditer parce que euh, les les les maire bii nii actuellement xam nañ mooy kan xam nañ mooy kan man mi immigré quinze ans maire bi ñëw ëppale ma xaalis ci trois ans mais dañ wax dëgg xool la jëlee xaalis bi il doit justifier son argent c'est vrai loolu loolu jarul wax suba premier jour moom mooy dem audité audité ñu fi ñëppoon jaaxle da leen audité ah parce que alul kër ma saar la ñoom moomuñu ko nit koo xam ay ñii ay lii la ñii ay lii xëy nekk ay millionnaire fan lañ ko jëlee fan lañ ko teg ci quel base lan la fan lañ ko liggéeyee mais Julio nekk maire maanaam campagne pour nekk maire yow mën yombul si Sénégal la plupart des populations je peux dire que ni dañu nekk population bi dañu bëgg xaalis mais yow léegi danga nga danga da nga yow maanaam da nga nar yow li nga liggéey Europe yëpp macha denc ko moom nga nar a campagne ou bien tu seras soutenu par diaspora bi. non loolu bu ñu si yeggee dinañ waxtaan ñun ak suñu sama kilifa yi. parce que man dama am ay kilifa. waaw ak suñu bureau bi dinañ si waxtaan. mais man ñëwuma pour jënd conscience kenn. dañuy ñëw pour di jiital population bi ñu topp ginnaaw par rapport aux politiciens ñoom dañoo jiitu que topp seen seen ginnaaw. ñun mhm. nag ñun différence boobu la indi. ça veut dire que dañoo ñëw uniquement pour population bi jiital leen kàcc bu ne ñu def ay conseil mhm. conseil yoo xam ne même bu leen falul sax kàcc bu ne ñu représenté. Mhm. représent am seen représentant ci municipal bi. lu fa metti lu seen problème ñu wax ko. commencé à 140 et quelques quartiers. Mais quand tu venais pour l'Amérique, sectoralement, nous avons eu des problèmes. Mais pour les gens qui ont dit que nous avons eu des problèmes. di wax ak ñoom chaque deux semaines nga génne benn live waxtaan ne financement fii la toll budget bi nii la nii eh, la koy régler mais dina lu leer loolu moo amul fii maanaam daal noonu la ñuy amee xaalis maanaam su ma comprendre da nga bëgg a wax ne comme par exemple entre Kër Massar pavé bi ni mu jaxasoowee noonu la gestion municipale bi jaxasoowee. ma ne pavé bi man mii mën naa ko defal waa Kër Massar. ce rien. du ma gisee xoolal vision manque bi xoolal luy manque vision. manque vision weesuwul yow fu kalandoo yi amuñu amuñu amuñu amuñu par exemple amuñu. Euh, espace bu ñu garé quoi. amuñu waaw waaw mooy euh, nu ñu euh, garage amuñu garage. yow nga ñëw wetu euh, ñëpp ci danger boobu nga ñëw indi fa ay ay ay fowukaay xale ay yu léegi oxygène bi ah euh, xale yu ñuy nooye ak insécurité bu am Kër Masar keroog dox naa ñu ñu nar ma tafu man man man mii gars bi dama ko buux. wala loolu. nar ma tafu man ko xanaa nga dof yow. te pourtant loolu. te gendarme yaa ngi euh, gendarmerie mu à deux pas. où est où est la sécurité. kon su comprendre bu baax da nga bëgg a wax ne actuellement maanaam day def te du tàggoo day def du yëgale. mais dafa xamul fu mais dafa fu muy teg tànkam. dafa xamul fu muy teg tànkam. fuñ dem ba ñu invité la télé nga war a wax les problèmes mhm. nga nekk di wax ay sama copain am nañ otoog man amoon naa ñetti otoog. mais mais mais mais ñun kan lañu fal. moo ñu jaaxal mais moo moo ñu jaaxal mais fan la teg kër waa Massa kër Moussa. xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal mbalit ñoo ko gisandoo moom xoolal lii mhm. lii ñaata nit la ci mën a feebar mën a feebar xoolal mbalit bi lañuy yendu xoolal lii ah xoolal lii bi day wax fii ah? bag naa la bag naa la culture bois mais il dit mbedd buur la mun na ma dar munu moo ko dara man kay dey wax wax na wax na chef de quartier bi mais ñoom deful dara yow loo xam si maire Kër Massar bi nga xamante ne moo gis affaire yi di ko di ko seetaan ah ñëwuloo fii ndi tak maire Kër Massar bi ñëwul fii chef de quartier bi wax naa la ñoom mais waxu defuloo dara man day wax toujours mais mu ne fii mbedd buur li mun nga mun nga wax pulaar sax mun nga wax pulaar nga wax sa li nga li nga xalaat yëpp si fii doo kay quartier yo alaa ko mbaawɗaa haalde heen hay batte moƴƴaani heen mhm. so a wullitiima hay gooto haalataa kala ɗo njaaɗaa mbiiɗaa ɓe ɗum ɗoo moƴƴaani ɓe laarataa nii par ce que ɗo tan hanki ɓe gasi ɗo eɓe dufa ɗo sal eɓe mbaɗa ɗo ɓe mbiɗ ɗo cabinage maɓɓe ɗo hanki hanki hanki tan ɗo ɗo ɓe mbiɗi ousmane wiɓe woto mbaɗe ɗo joom daaro o wiɓe woto mbaɗe ɗo ɗo ko fasgallam kono ɓe mbi ko mbedde buur ala ko mbawɗa hen nawet bi buñewe tawɓi fiumimel fi ah. kay nawet bidi boñe toɓo ngo so ari awa rewɗo ɗo hmm. kene fi jaar ah, kene fi jaar hmm. ɗo kay hay goto wa rewɗo ɗo hmm. yimɓe fof ko to deftoyde min joni ɓe keeli miram pannomi ko haaɓe pewna canal maɓɓe moɓe mbi o mhm. kono ha hande ɓe garani min kam ɓoyata mi waɗa taba eh, miram mhm. mi acca par ce que kamɓe hay goto contata sur laamu sénégal mhm. yaadi loi mais son explique pas des lois même ti porte en quelque plainte jaaha laamu nawamo lawol e eh, ɓe mbatta e batte Fak ki mwen mwen akouman mwen bat ave nè akal, mhm. de poulo te pilat. Mhm. Min basman mwen miyo bi, mhm. e masan, pou wad anamirake basman oufou chagal, an milyon, senkante mil, e, kalpe mwen masan. Miyo, omoubyen mi baba, ka poulo kom poulo. saa yoo bii kam haala bi hatta kam liggaade mais est ce que maire Kër Massar xam na li ngeen di dund fii nii seen problème après xam naa ko parce que wax naa la chef de quartier bi dem na foofu lu mu ko wax mu ne mu ne chef de quartier bi day war dem service dixième service dixième kay moomu ɓayaade service dixième ri chef de quartier ari haalni ɓe ɓe njaha service dixième ɓe mbiyen ɗon ne waɗe salté kono ɓe hay goto buusata merci beaucoup papa a jarama jarama Mm-hmm. benn riverain benn voisin moo doon traversé donc gis affaire bi intéressant aussi moom mu ñëw joxe ci appréciation wax ci xalaatam donc on revient à nos moutons du stop mais Jules waaw daa mel ni commencé nga am ay militants mais ñii dafa mel ni amaguñu 18 ans. mais mais ñii ñaar ñooy futur. man ñii ñoo tax ñuy liggéey. wala seen yaay ak seen papa ñoo la nar a voté. déggoo ma de. waaw man ñii ñoo tax parce que dama ci am ay ay njaboot. dëgg la ñii ñoo tax ñuy rey suñu bopp. dëgg la man liggéey ma pour euh, euh, pour. sa famille nii comme ñi ko bàyyi defee non non dafa pas égoïste dans la vie. dëgg la nañ liggéey pour ñii. Mhm. parce que ñii ñooy futur. dëgg la dëgg la xam nga xam nga xale foo ko gis rek. Mhm. il y a l'espoir. ba pare muy xale dafa set. Ah, xale dafa set dafay wane lii preuve la. preuve la de la de. lii preuve la. xanaa sa gars kenn woowuma leen. xanaa sa gars yi nekk bu ñu gisee. seen war na mën a daw ñu yónnee ñu defal dara boy voilà parce que lii c'est naturel moom. c'est naturel moomuma kenn. moomuma kenn. c'est naturel c'est les enfants du quartier. voilà xam naa dañuy fekk ak jàmm xale yi fii la ñuy fooy. xam naa dañu fekk ak yow jàmm moo tax la wala ñu seen yàlla mais ñoo war a tax mm-hmm. mais pas mu tuuma nga di ko ay nasaraan. Mm-hmm. ah ay bailleurs de fonds pour ñu ñëw defaral la yow tu n'es pas compétent. dëgg la mais Jules dégg naa marché Aynou Bari bi di biir. marché Aynou Bari bi moom ay problème ci problème ci problème ci problème. mi ngi parce que man yónnee na benn affaire mhm. waroon naa ci wax mais dama bëggoon ñëw ba ba laaj mais balaa ma ci wax. def sa enquête quoi. yaa gën a def sa parce que léegi bëgguma di wax noonu rek. mais man indi benn affaire ñun en tant que média am na lu ñu ci jot xam mun naa la ma def sama analyse. waaw marché bi. waaw donc dañ dañ ko tabax à l'insu du conseil municipal. waaw léegi gars yi bu ñu demee def seen enquête ñoom man a cinq six conseillers. Mm. bu ñu defee seen enquête dem ñu ne jaay nañ table yi à deux cent cinquante mille. à

affaire yi jiite ñu la rek. Mhm. taxul nga nga yaa moom lépp yaa moom ñii yaa yaa leen gën xajale ñii non non. Mhm. du sa nit. Mhm. même borom kër da ngay da ngay njaboote ñëpp. yaatal quoi da ngay mboobaa xoolal xale yu wër. dafa leer dafa ah, leer ah di tam bu ma neexoon tàqalee wala ne si lañ bokk. parce que ñii ñoo tax ñuy xeex. ah xool leen xoolal xale yi ah sa yaram day daw. dafa dafa yërëm tëlu. xam naa ni xale yi ñëwee gëm naa ne peut-être seen parents nekk. ay non

ne ko marché bi il faut nga ubbi ko. Mhm. parce que munu munu ma gëm ni marché boo xam nekk ci wetu maire. nekk ci wetu primaire nekk ci wetu CM nekk ci wetu euh, dispensaire nekk ci wetu maternité. Mhm. ba pare jën yu xeeñ yeeg xale yu fay jàngee yëpp. non ñooy xaar nga uy ubbee gi kan ma def nag. Mhm. tax na ubbi nañ ko sans sans ñu inauguré ko xam nga ñoom dañoo bëgg ay dégg naa fontaine sax dañuy dem inauguré ko. <laughs> jël kooku yaa ko ñemee wax. looloo maa koy wax. looloo maa koy wax parce que looloo am. dëgg ndax mais am na aussi lu fi jot a am. waaw ñun aussi comme on a un média et puis mm-hmm. man mii Shingo di wax ak commando. Mm-hmm. mi nekk ci euh, mécanisme bi. Mm-hmm. yi gars yi ils nous donc d' leur dire ñu ne. ñu ne le maire. waaw mu dàq Mohamed Sagna son. loolu man man man mii xam naa. waaw son chef de cabinet mu dàq Dame Thiam bi nekk ci foyer des jeunes dàq Mariama Niass bi nga xamante ne moom mi ngi woon. Euh, moo nekkoon secrétaire Ousmane Sarr xam nga. dàq personnes yoo xam te ne ñu bëri na parce que nee na ànduñoo ak moom ci dynamique am looy wax ci loolu. njiit bu baax. Mhm. njiit bu baax day am coloré. Mhm. ñoo nekkoon ci xeex. Mhm. kon tey bu affaire yi neex nga am ay nouveaux amis. ay ay ay ba pare commencé xeex ñooñu mais Sagna c'est un bon élément. wax naa ko bàyyi politique bi. ñëwul nekk actif bi ñëw jàpp si. que la xam ne ni lox sa loxo set na. man maa ko njëkk saa ne ko Sagna tôt ou tard tu vas laisser Moustapha Mbengue parce que bokk nañ idéologie léegi ba ma koy wax keroog dafa ree kere ba ñu gisee man ko je t'avais dit mu ne ma mu ne ma booy c'est très dangereux man ko non tra vision laa am parce que a ku jub ak nit ku ñoom ñooy ànd nañ waxante dëgg nit nañ ragal yàlla nañ ragal yàlla alal addina ma di dara nañ liggéey man je préfère liggéey ëllëg sama doom rom ñu aayoo ah sa bàyyi de moo defar lii gàcce ngaalaama moo defar lii gàcce ngaalaama gàccaam mais nañ waxante dëgg mais defar benn pavé jaay affaire n'importe quoi mais pavé bi dégg naa ñu ne d'après leur dire euh, ay rumeur